boo xam ni télévision Futur Média daf leen ko jagleel tey euh, li ko waral nag mooy waxtaane tolluwaayu réew mi xam ngeen ni télé bi moom mooy euh, seetu Sénégal euh, loolu sabab na su xew-xew tollee nii amee nii ñu taxaw seetlu ko ci émission fii ci télévision Futur Média loolu nag lu ñu tàmm la lu ñu yàgg di ànd ak yéen la loolu mooy li nga xam ni moom moo ko sabab ñu am ci mbégte bu yaatu nag tey di ci dalal ay gan ci ci ci gan yooyu jàpp nañu ne dinañ ñu gindi ci li ñu fas yéene waxtaane ponk yi ñu fës fas yéene waxtaane nag eh, bi ci gën a fës xam ngeen ni alxames bi ñu génn ci la ñu convoqué waatoon kii di Ousmane Sonko ak ki nga xam ni mooy Mame Mbaye Niang eh, ci procès boo xam ni seq nañ ko ñoom eh, muy alxames bi nga xam ni ci la ñu génn ci alxames boobu nag lu bari xew ci ndax euh, ci la ki nga xam ni mooy Ousmane ko demee euh, fi nga xam ni mooy ca l'hôpital ñu daal di ko fay téye loolu lu bari dégg nañ ko ci ci li nga xam ni euh, am na ci wàll boobu ci noonu itam la ñu gisee arrestation yu bari arrestation yooyu li ko jiitu ñu gis ay manifestation fu bari ci biir réew mi ay yëngu-yëngu ay tàkk-tàkk ñu gis ko fitna gu metti am ci biir réew mi loolu nag ci la lu bari sababoo ci mbir yoo xam ne mu aju ci wàllu arrestation ci di Ousmane sonk itam génn ci ni xam ne noonu la ko tàmmee euh, ci benn vidéo boo xam ni defe na ko ca lalu lopitaalam wax ni xeex bi vraiment warul jeex maanaam fii ñu toll nii foofu lañ ko war a gën a commencé euh, xeex boobu mu indi ci ay misaal yu bari waaye itam def ci discours boo xam ne ñu bari dégg nañ ko euh, loolu nag la ñu fas yéene waxtaanee mbokk yi tey ak leneen loo xam ne itam aju na euh, ci li nga xam ne moom mooy tolluwaayu réew mi loolu la ñu fas yéene waxtaanee tey ak suñu ay gan ci ñoo ñu bokk na ci waali Fall moom ministre conseiller la bokk ci Benno Bokk Yaakaar maa ngi lay nuyu monsieur Fall Waly. maa ngi lay nuyu Pape mhm. di nuyu toog ci ci bi. di tàmbali ci suñu jigéen madame le ministre Fatou Amadou ak mon frère euh, maître Babacar di nuyu aussi bépp téléspectateur bu TFM te xanaa rek di ci ci ci weeru koor bi ñi ñi tàmbali di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla yal yàlla mbay koor jàmm. amiin jàmm ci Sénégal dolli sutura. bu ñëpp fekkee ko. amin yaa rabbal jërëjëf. merci monsieur le ministre Waly Fall ñu ànd ci ak Fatou Blondin Diop moom nag mooy euh, coordonnatrice adjointe bu euh, Sénégal Avenir bi ñu bëgg te nga xam ni mm, suñu mag Cheikh Tidiane Dieye moom moo ko jiite maa ngi lay nuyu madame la ministre. Euh, maa ngi lay fay Pape ngañ di nuyu ñi ñu seqal plateau bi di nuyu seen internautes yi seen téléspectateurs yi. Euh, di ñaanal waa Sénégal yëpp euh, ñu ci jullit yi ñu dugg ci weeru koor jàmm ak salaam génn ceeg jàmm ak salaam euh, di bañ a fàtte tam suñu mbokk chrétiens yi ñoom tam ñu ngi seen biir ci seen koor defe naa ne léegi mu jeex mhm. waaw kon boog ñun ñoo bokk soor ñun ñëpp mhm. bi yoon ñu koy rafetlu tamit loolu d' accord merci beaucoup madame la ministre ñu ànd ci ak maître Bassirou Ngom moom mi ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar moom itam ñu am mbégte di ko recevoir maître ñu ngi lay nuyu. Euh, Pape Ngagne ñu ngi lay nuyu di la fay di nuyu téléspectateur TFM yëpp. Euh, di nuyu waa Sénégal euh, comme ni ko suma naatoo ngi waxee di nuyu ñëpp ñi nga xam ne si plateau bi muy Waly muy Soxna Fatou ci moom laa doon commencé parce que c' mois des femmes. Mm-hmm. di nuyu Amadou. ne ko weer bi feeñ na na góor góorlu si si koor gi li euh, ñaanal Sénégal yëpp di baal ñëpp ak di baalu ñëpp vraiment si weer bu sell bi nga xam ne mooy weeru koor gis nga ni ko soxna si waxee mu am coïncidence bu heureuse Sénégal aussi parce que yàgg na am aussi entre Carême et le mois de Ramadan musulman euh, ñu yaakaar ne loolu lu baax la mm-hmm. yiw rek moo si moo moo siy topp ko Sénégal am njàmm nit ñi mun ko def si anam bi nga xam ne moo moo moo gën. merci beaucoup jërëjëf ñaan suñu borom nag ko. ñu ànd ci ak Amadou baax moom mi ngi bokk ci Pastef bokk ci kàngam yi ñu ngi lay nuyu monsieur Ba Amadou. waaw asalaamaaleykum Papa Ngagne maa ngi lay fay. maa ngi nuyu tout d'abord ñëpp ñi nga xam ne seq nañ ko plateau bi monsieur Fall madame Fatou Blondin ak maître Ngom. Euh, di nuyu seen techniciens yi ak waa TFM bi yëpp di profité rek ci occasion bi Euh, nga xam ni yàlla may nañu ren koor goo xam ni ñun ñëpp ñoo ko war a nar bokkandoo def mhm. mu nekk xéewal yàlla may ñu kàttan buñ ko wooree xéewal yi mu ci diggee yëpp yëpp yëpp mu may ñu euh, ñu jooxe ko mu sotti ko ci Sénégal mu sotti ko ci àddina mhm. jërëjëf. merci beaucoup euh, monsieur le ministre Waly Fall wax naa ko léegi ci introduction bi euh, ci li nga xam ne génn nañu ci. Euh, ci alxames bii nga xam ni moo yema woon ak fukki fan ak juróom-benn muy le 16 euh, mu nekkoon euh, procès Mame Mbaye ak ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko daanaka ci procès bi ba léegi bañ ci génnee ba léegi daanaka ci loolu la ñu nekk. niñ ci nekkee mooy xew-xew yi fi amoon fitna gi amoon arrestation yi mu ngi continuer ba tey jii buñ ci taxawee ci loolu ban analyse ban jàngat ban enseignement lan nga ci mën a indi ci lan moo waral lu ni mel pour yow. waaw maa ngi euh, di rafetlu euh, question bi. Mhm. Euh, Pape comme ni nga ko waxee depuis bi ñu jógee ci le 16. Mhm. mars bi passé mu doon bës bi nga xam ne dañ jàppoon ne que procès bi war na mën a tàmbali waaye mbir mais li am solo mooy ñu wax li nga xam ne moo jiitu proce bi. li tax tey li nga waxee depuis le 16 ba léegi ñu ngi ci biir procès bi parce que dafa am lu ko jiitu ci wàllu doxalin ci wàllu taxawaay ñi nga xam ne ñoo war a seq boobu procès mu jëm ci ñaari citoyen kii dafa am lu mu wax jëmale ko ci benn sitoyen citoyen boobu ne ko man da nga tuumal dama la yóbbu ci fa mbax ne nekkee benn mhm. li nga ne am nga ko toog nga ci mi ci yow nga génn ko man tamit war naa mën a seetal sama der daanaka suñu yemoon ci loolu rek du ñu nekk ci projet bi ba tey fii toog fii di ko waxtaane ndax gëm naa ne que bés bu nekk tribunalu Sénégal yi di àtte ay lu ñuy wax ay réeróo ah te coow lu mel nii amul waaye lu tax coow li bëri mhm. parce que xëy na ñaar ñi ko seq ah seen seen statut moo ko indi waaye aussi li tax tey donte sax statut boobu ñu am ñoom ñaar ñi nekk des hommes politiques ñi nekk ministre nekk warul tax sax ba coow ak piccoxoo di am ci ci loo xam ne yoon moo ko rek moo ko war a mun a àtte man li may gën a euh, naqarlu di ñaawlu mooy kàddu yi nga xam ne jëpp na balaa procès bi di ñëw jóge ci leader politique bu ñuy wax Ousmane Sonko bi nga xam ne moom la mbir bi concerné muy def un appel li muy wax moom appel à la résistance di woote ay ay ñoñam xale ak mag bës boobu bëgg naa ñëpp ñëw fekk si ma ca ca tribunal. Mm-hmm. ba pare jóg ne man fu mu neex lay jaar amul kenn ku may mën a teg ci yoon boo xam ne su su mu jaar dam fa jaar maanaam daal dugg ci loolu ñuy wax défier. l'autorité en général loolu nag moo indi malheureusement xët-xët yi toj yi yàq yi ak faatu yi te may commencé sax di gën a méttitlu faat bakkan yi nga xam ne dañoo rot ci bës boobu di ci jaale njaboot yi nga xam ne ñoo si ñàkk seeni doom ak côté nag bu ñu munti bokk parce que ñëpp ay sénégalais lañu. te wax fa dëgg yàlla politique yàgg na fi tar. mais homme politique yàgg na am problème sax ci tribunal mais bañ ko considérer comme c'est un problème politique. tey li nga xam ne moo fi xew ci wàllu toj ci wàllu gaañ ci wàllu rey ci wàllu défier doon na loo xam ne mandarga bu rafetul la ci visage u Sénégal. rawatina mu jóge ci nit woo xam ne am na sañ-sañ na man damay yóotu. d'accord pour ëllëg moo war a mën a. Mhm. toog jiite Sénégal am na ci am na ci mhm. Mhm. mais su fekkee ci yóotu boobu façon bi nga bëgg a jotee ci réew mi. tas réew mi tar réew mi daf ko dóom ba pare su ëllëg sax su yàlla defoon nga toog doo fekk dara. te réew mi dafa doon réew woo xam ne réewu jàmm la dafa doon réew boo xam ne réewu dal la. doon aussi réew boo xam ne aussi dañu war a respecter kilifa yi que ça soit kilifa àddi yi kilifa diine yi kilifa ñi nga xam ne tey ñoo yore état bi loolu yëpp dafa doon loo xam ne dafa war a nekk suñuy mandarga mhm. te loolu la ñu nawee Sénégal en tant que démocratie exemplaire li ñuy wax daal a cadre de la sous-région. d'accord merci beaucoup ba tax na daal vraiment loolu laa amoon lu may introduire. merci beaucoup alors madame le ministre soo déggee euh, li nga xam ni moom la Waly wax dafa jàpp li fi xew yëpp défiance la boo xam ni Ousmane Sonko défier na ko état euh, moom mooy li nga xam ni moo indi euh, lii nga xam ni moom moo xew. ndax bokkee ngeen ci gis-gis loolu sax mun naa njoxtin du ngeen ci mun bokk gis-gis ndax bokku leen côté mais bëgg naa ci xam sa xalaat. waaw waaw defe naa ne sama naataango bi dafa fàtte ne que Macky dafa fekk Sénégal boo xam ne suñu woowaan nit dafay jug dem jël yoon bi ko neex te coow du am dafa fekk Sénégal boo xam ne boo amaan procès diffamation bu la neexee nga dem bu la neexee doo dem yéen defe naa yéen journalistes yi xam ngeen ci dara kenn du ñëw jël si la manu militaire yi forcé la ne foog nga dem forcé la ne foog nga aw fii dem foog nga forcé la ne booy ñibbi tamit foog nga aw fii dem Macky Sall fekk Sénégal boo xam ne tamit boo xasee ba dem tribunal bañ na renvoyé la booy renvoyé nañ procès bi ñëpp dañuy ñibbi seen kër coow du jib kenn du la arrêté ci yoon bi kenn du la fekk sa biir oto kenn du toj sa oto kenn mësu ko gis Sénégal kenn du la fekk ba sa biir oto xëcc la génne la bañ naan am nañ luñ la sotteek am nañ luñ la sottewul Macky fekk Sénégal boo xam ne bu coow amee bu kilifa waxee ñëpp seddal wàcc dalde ne lii lañu teg lii moo tax ñu mer boo leen demee yéen kilifa diine yéen kilifa aada teg nañ lii moo tax ñu mer ñooñu bu ñu seetiwaan kilifa dañuy dellu si ñëw ne am nañu ndam tey ñooñu bu ñu demee bu ñu ñibbisee du ñu am ndam ba dañuy toog fi ñu toog naan ñu ameel lañ leen njukkal ndax da ngeen ñu joxoon yóbbante te amuñu ci réponse mu fekk senegal boo xam ne tamit lu xuloo bari bari lu yë lu wax ji bari bari euh, bu ñu toogee di waxtaan dinañ xam ne dëkk bi bu yeggee ci yu metti ñu ñëpp dañuy wàcce kenn du fañ-fañ wàccaca fañ-fañ ca kenn du ne opposition dama lay dindi doo fi nekk kenn du ne yow def naa référendum jox naa leen sama kàddu dëkk bi dal na am na fi coow yoo xam ne jële woon na fi ay bakkan dootu fi amati mu ñëw dellu siwaat ñu ca coow loolu jële woon ay bakkan mu fekk fi tamit Sénégal boo xam ne mësuñu gis ambulance bu ñuy arrêté ne la doo faji nit nu mosu ko gis senegal mu fekk fii Sénégal boo xam ne tamit presque mun nañ wax rafle la parce que buñ naan benn jour ñu jëli cent personnes ñu jëli cinq cinquante personnes xaw ma ñaata personnes mhm. yóbbu leen fekkul senegal bu mel noonu musul am mhm. mu fekk tamit senegal boo xam ne lu mu bon bon bon buñ laxasee ba tuumal na yow mille milliards yi am na lu ci taq suuf te muy ñaq Sénégal dërëmu gerte caaf ak milliardaire u keneen di ci jéem a def dara di nga ci jéem a xeex di ci jéem a sax am kuñ ci woo mu fekk fi tam Sénégal boo xam ne bu amee problème ci ñaari nit doo dégg procureur ñëw yokk ay tuumaal benn nit ci diffamation rek li yàq dafa bari léegi nag tàmm nañ di wax ne ki dóor xamuñu ko ki fayu lañ xam ci fayu lañ xam am na wax yoo xam ne am na jëf yoo xam ne moo gën a metti fuuf ki génn ci biti di sànni xeer moo ko gën a metti fuuf ndax yow buñ la dàqee sa liggéey dem ba sa kër yaay di fa wut fiche parrainage est-ce que mës nga dégg loolu Sénégal toj sa permanence enquête amul rey sa militant enquête amul ak yeneen ak yeneen ak yeneen benn benn benn mësuñu tuumaal ñu gis loo xam ne kenn mësu ko gis Sénégal tam ci Macky Sall lañ ko gisee ay nervi yoo xam ne dañuy ñëw officiellement nekk ci wetam video yi wane leen ñuy def lu leen neex doo mësa a dégg ne dellu nañ ci loolu d'accord merci ñu fekkati Sénégal boo xam ne tamit mën nañu tiire bal nit te l'enquête du am mën nañu rey nit wala bokk ñu ne dañ ko rey parce que mbokkam gisatuñ ko kenn sañu laj ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey jii fi mu yóbbu Sénégal ci ci ci ci ci ci ci wàññi gëddante suñu biir ak ak yooyu dafa sori dafa metti te mooy njiit mhm. te kenn du wax ne bilan opposant Senghor walla bilan opposant Euh, euh, Abdou Diouf kenn du wax bilan. Euh, Sonko de. bilan Macky Sall la ñuy wax parce que mooy président. d'accord merci beaucoup merci beaucoup madame la ministre Fatou Blondin Diop ma ñëw ci maître Bassirou Ngom maître dégg nga ni nga xam ne noonu la madame la ministre décrire Sénégalu Macky Sall lépp fitna la lépp xeex la lépp mitital la lépp xorñoñol opposition la dégg nga ko ni mu ko doon eh, ni mu ko doon eh, eh, ni mu ko doon tegalee loolu itam lu ci bari wax dëgg yàlla nekk loo xam ne nit ñi gis nañ ko ndax Sénégal boobu mu gis moom nga gis wala am na wute wute. non merci pam nga xam nga aussi c'est très simple aussi nga tegale sa récit euh, pour Sénégal am noo décrire Sénégal boo xam ne espace Sénégal la. Mhm. dafa yomb trop. Sénégal yàgg nañu def politique depuis avant les indépendances peut-être lu ne xew na fi mais Sénégal mosuñu gis une opposition buy defee ni politique aussi. Sénégal amoon na politique mais bi aussi yàgguñu ko xam politique boo xam ne tu défies tout le monde les institutions les marabouts tout le monde kenn baaxul ñu la ñoo baax est-ce que politique boobu aussi amoon na ci opposition ba fi ñu toll nii en 2023 ça aussi c'est une question qui est pertinente. est-ce que Sénégal aussi euh, nekkoon nañ Sénégal boo xam ne parce que da nga wax lu am solo aussi soxna si nee nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dafa amoon kilifa kilifa dañ ko doon déglu même bu méttee aussi ñu woo kilifa waxtaan ñu defar dëkk bi loolu lu baax la lu ñu bëgg aussi mu continuer mais est-ce que aussi Sénégal amoon na opposition boo xam ne dañuy taxaw ne kilifa bu leen wax bu leen ko déglu. est-ce que loolu aussi opposition boobu aussi amoon na ça aussi il faut le relever te li boobu dafa am léegi ñu koy dégg tous les jours bu leen déglu kenn def leen li nga xam ne moom laa leen wax d'ailleurs on parle de talibé pour tout simplement concurrencer ñi nga xam ne peut-être dañ jàppoon ne ñoom la war a jàppee taali jàppee sëriñ nekk ay talibé je pense que Sénégal mu ngi jaxasoo jaxasoo boo xam ne ñëpp xam nañ fa mu jóge Sénégal yàgg na am pouvoir yàgg am opposition Sénégal nit ñi di jàmmaloo di waxante di demande ku nekk aussi di indi ay bilan lii laa bëgg nii laa bëgg a téye Sénégal kii ni mu téye Sénégal baaxul bëgg naa ko téye nii laa fa bëgg indi indi ay proposition mais je pense que Sénégal bu ñu nekk léegi opposition bu ñu gis léegi je pense que leneen la ñuy def que de faire de la politique de proposition def ay contre proposition wax waa Sénégal lu ñu bëgg jéem a seet li nga xam ne baaxul ñu rectifier ko donc ça aussi il faut relever maintenant quand il dit également que Sénégal xamuñu ku dóor ku fayu la ñu xam ça c'est un aveu de taille pour dire que fayu li ñu gis ñu ne mooy fayu mooy taal mooy yàq yëfu jàmbur mooy défier l'autorité mooy insulter ku wax loo xam ne bokkul ak li nga xalaat ba ñëpp jàpp ne ku wax dinañ la saaga ba les sax ñu ngi koy xaar bu ñu bokkul opposition ak ñooñu bu ñu bokkul opinion ak loolu donc Sénégal boobu la ñu nekk léegi aussi c'est cette opposition qu'on a aujourd'hui au Sénégal est-ce que opposition boobu loolu la ñuy xaar ci opposition ci contre-proposition parce que chaque fois ñu wax ko ne ils ont un statut parce que constitution def ko wax est koo xam ne am nga statut constitutionnel c'est-à-dire que Sénégal moo la jox statut est-ce que yow comportement boobu nga war a am vis-à-vis de ce Sénégal est-ce que demain su la joxee réew loo fiy fekk donc da nga bëgg ne avant may ñëw lépp day nërmelu y a pas d'institution personne n'est bon il faut tout le monde tout le monde à la poubelle dara baaxul man rek maa baax ñun kese ku wax tamit ñu dal sa kaw ñu saaga la ñu dëkkal la foo dëkkul ñu sosal la créer la ay mbir donc Sénégal est-ce que politique Sénégal mën na nekk manipulation tous les jours 24 heures sur 24 di jéem a seet loo mën a créer pour voir Sénégal dégg ko j'ai l'impression que même parfois dañuy dem ba foog ne est-ce que ñii jàpp ñu ne dañu hypnotiser waa Sénégal ba dootuñu am xalaat parce que parfois ñu def ay proposition def loo Sénégal loo xam ne man mënu ma comprendre ñu def la ko en sénégalais parce que le sénégalais il intelligent mais j'ai l'impression ko euh, actuellement dans cette manière de faire de la politique ñu ngi jéem a jàpp ne peut-être Sénégal peut-être am na fu ñu toll ak ñoom ba nga xam ne lu leen neex ñu def loo nit donc pour dire tout simplement Sénégal dafa toll foo xam ne c'est une démocratie parce que président de la République rappelé na ko tey en conseil des ministres dina nekk un état de droit ça continue à être un état de droit état de droit nag dafa am ay exigences exigences yoo xam ne du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition donc <coughs> citoyen bu nekk boo amee ay droits am nga ay devoirs boo am ne loo xam ne am nga ko aussi am nga ay obligations obligation yooyu nag c'est le contrat social bi nga xam ne moo ñu moo moo ñu moo ñu tënk au niveau du pays donc am na loo xam ne man mënu ma ko def. Mhm. donc Sénégal woo nañ kenn parce que ça met au plus deux personnes deux Sénégalais nga ne tuumal naa diw def na lii j'ai les preuves il faut que aussi le Sénégal aussi ku nekk gëm sa bopp xam ne li ma dégg moom la ñëpp dégg bu ma koon dégg loolu loo xam ne dégguma ko donc noonu la demee mu ne am naa preuve yi dama bëgg a gaaw sax. ñu dem procès comme ça ma wane ko. commencé lire ay passages. <coughs> quelque temps après nga ne dañ ma indil en erreur. Mm-hmm. et ensuite nga ñëw ñu woo la parce que kooku amul leneen lu mu mën a def nous sommes dans un état de droit. ki nga tuuma. Mm-hmm. amul beneen pexe. Mm-hmm. parce que amul droit def leneen. d'accord le seul droit bu mu am. moo porte la plainte. c'est exactement ce qu'il a fait. mu porte la plainte c'est un particulier. nga ne euh, c'est euh, encore. Euh, euh, dañ ma complot et cetera et cetera alors que yow sa bopp yaa wax kenn waxloowu la il faut quand même parfois si politique d' accord on n'est pas du même bord ñu aussi si ni nga xam ne ku nekk moom nga bëgg. mais quand même bonne fois tuuti parfois aussi baax na si. parce que on parle au Sénégalais qu'on doit respecter. merci beaucoup maître Bassirou Ngom Amadou Ba bokk ci Pastef euh, génn nañ ci fukki fan ak juróom benn li xew yëpp gis nañ ko yàqu-yàqu am na. ay bakkan sax rot nañu ci. mu nekk lu metti mais boo dégloo maître Bassirou Ngom dafa jàpp ni lépp.